maa ngi présenté wu Mouhamed Badji man maa yore kàddu meeru Diamniadio di wax ni am naa bégte am naa kontante parce que bés bu tey bi bés bu am solo la si ñi nga xam ne ay taalibe lañu monsieur le maire de la commune de Diamniadio monsieur Abdou Ndiaye nga xam ne moo yore coordination bi monsieur Fallou Mbacké sëriñ Fallou Mbacké Khadim mbake ak Ibra Mbacké ñoom ñëpp a taxaw ànd ak ak taalibe yi préparé bés bi muy bës bu am solo dégg nga xalif bi daf ñu gërëm porte parole am Baye Cheikh ñaan daf ñu gërëm parce que taxawaay bi moo rafet ci bés bi dañu taxaw tem xaar sëriñ bi fan yi yëpp tey ñu dem jëli ko fële ci rond point Sébikotane bi andi ko fii sëriñ bi ñëw xool liggéey bi nga xam ne taalibe dañ ko tàmbale ba ñu yóbbu maquette bi man maa ngi fi woon sëriñ Saliou joxe ndigal ànd ak sëñ Moustapha Mbacké bu Sébikotane bu faati xar yi ne leen na ngeen tàmmalee mercredi bés boobu la ñu tàmbale processus bi maquette bi ba tey man dama ko fekkee sëriñ Saliou Sy boobu la ma ñaanal ba ñetti yoon kon nag tey lépp lu ma am rek murid la tax ñun dañu daanu leer fu mu toll nii ba tax nag waxoon na ko à la à la kii à la volaille et au chameau ginaar ba am na fi kuñ ko jaral Serigne Touba ko jaral kuñ ko jaral sëñ Mouhan Mountakha Mbacké moo ko jaral kuñ ko jaral sëñ Bass Abdou Khadre moo ko jaral kuñ ko jaral dama ne Baye Cheikh Niang représentant Serigne Touba fii mooñ ko jaral kon gërëm nañ leen sant nañ leen taalibe nañu gën góor góor gën a farlu gën a jàpp ci liggéey bi pour jumaa ji yegg waaye yéen dama leen di gërëm sant leen seen taxawaay rafet na ba ñu commencé di waaj bés bi da ngeen taxaw tam wone adduna bi yëpp xam ni porte parole xalifa bi dina fi ñëw information au niveau international que sëñ Bass Abdou xaa dina fi ñëw xool liggéey bi nga xam ne taalibe yi dañ ko commencé woon si jumaa ji xool liggéey bi fan la fan la tàmbale mais fan lañ ko mën a yóbbu pour nest pas mu yegg dégg ngeen sànq maquette bi xool nañ ko 80 millions sëriñ bi na jàkk xool rek bind bi rek xam nga yëf yi yegg na kon na nañ gën a takku gën a manku bokk ndey bokk baay nekk ci ginnaaw baay Cheikh Niang nekk ci ginnaaw seen Touba pour que jumaa ji mën a yegg